waa li ma ci gis rek mooy la Ousmane Sonko waxoon rek mooy leer la leer na mooy complot la ay nit ñoo fere ñoo doon def seen complot kàcc mhm. di wax lu ñu mhm. dëgg pour bëgg koo faagaagal mhm. waaye nag moom ah yombalu leen ko taxaw na résister a ah, gis nga li ci am waaw ay bakket rat na ci lu ne am na fi ñi yàqule nañ ci ñii dee nañ ñii tëj nañ leen kaso ñii exilé wu nañu ñii jël nañ gaal bi waa mhm. tout ça pour ça. tout ça pour ça. tout ça pour ça. atte nañ euh, juge bu nekk ci Ziguinchor atte na jox ko. jox ko mhm. dëgg ñu ne état ne du ko appliqué. Mhm. mu ñëwati Dakar jox ko dëgg. état ne du ko appliqué. waa lan moo tax ñu delluwaat ginnaaw. lan moo tax ñu delluwaat ginnaaw. léegi léegi léegi léegi li ma la bëgg laaj ma ne est-ce que est-ce que jàppoo ne yoon la rek pour euh, xaw a xajamal affaire yi ndax ñenn ñi ñoo ngi laam-laamee ndax bugguñu reprendre processus bi maanaam arrêté yëf yi fu mu toll nii jéem a xool nan la ñuy sërëxalaatee Ousmane Sonko mu bokkaat yëf yi xool Karim Wade itam ñu koy bokkalaate yëf am na ñoo xamante ne ñoo ngi tàmbalee tàmbalee alimenté débat yooyu ma ne bàyyi leen wax jooju Ousmane Sonko mënatul bokk Karim Wade mënatul bokk mhm. waaye bàyyi leen wax jooju processus bi day dem day continuer conseil constitutionnel moo nekk au dossier. Mhm. li mu wax kenn mënu ci dara. d' accord kenn mënu ci dellu ginnaaw. Ousmane Sonko du bokk Karim Wade du bokk Karim Wade mooy kan Karim moo gaa yi fi nekk rëkkale nekk biir Sénégal. doy na waar de. yow taxaw fële ci àll ba ragal ba bëgg de tapet. ah déedéet <laughs> ñu ñu ñu oyofal kàddu yi rek Diop jaru jaru jaru ko waaw non non parce que mais Karim hmm. moom su soxlaa na ñëw fii. comme ay mhm. moroomam. Mhm. raak laa mën nañ comprendre sax. tey mhm. nekk ca àll ba du ñu fontoo. moom mooy kan. d'accord processus bi gis nga li conseil constitutionnel wax. kenn mënu ci tous. les dix-neuf retenus là ñooy dem Macky Sall bu leen ko wutal borom ndoll. naan dafay dàqaat élection kenn du ko fi dàq. d'accord élection par force moo à de mu abal ñu. ñu jël réew mi teg ci yoon. loolu mooy wax léegi yow li nga gis hmm? ma ni li nga gisagum ci campagne bi ndax dal noonu na sa xel dafa mel ni dese naa am engouement gars yi ay caravane kese la ñuy wax la ñuy la ñuy defagum ah, daanaka sax meeting ñi naan wax ne moom mooy euh, moom mooy tax gars yi xam ku nekk sa doole politique euh, ba dafa mel ni ba léegi daal euh, ñu dul waa Benno Bokk Yaakaar yéen waa Diomaye président moom caravane rek ngeen di def waaw mais caravane bi am na solo mhm. parce que nit ñi xam nga campagne sax matu ko woon mhm. ndax nit ñi déjà nañ ce qui se passe ak xam nañ li ñu bëgg parce que nit ñi lépp ci Sénégal li ñu bëgg mooy ñi jóge fi abal ñu nit ñi mu nekk si jàmm parce que ñii régime bi ñoo tenir en état nit ñi fi nekk bon avec la la la les nouvelles technologies là mais Sénégal gi yëpp foo dem comprendre nañ la xew. Mhm. xam nañ li ñu bëgg. donc caravane yi ñuy def nii dañuy remobiliser rek te sensibiliser nit ñu jëli seen carte pour ñu mën a voter massivement. Mhm. waaw donc euh, am na solo man gis naa ja jomaay président ñu def seen caravane waa PUR ñu def seen i caravane mhm. di def ay porte à porte mhm. gis naa ñoom Khalifa Sall gis mhm. naa ñoom euh, Pape Djibril Fall gis naa euh, Déthié Fall Malick Gakou mais campagne bi ça va très bien ça se passe très bien d'accord malgré obstacle yi parce que li problème yi boo amee Macky Sall moo koy indi d'accord ça aussi il faut il faut le dire parce que moom mi dem ba à deux jours à dix heures dix heures de l'ouverture bien sûr de de la campagne initiale pour ñu ne décret di tappale mhm. xam nga ne moo ñu indi ci situation bi léegi yow li nga gisagum kan nga jox faveur ah man joomaay daal laa yaakaar ne ñoom <laughs> yow fàtt naa da ngaa far sax waruma laa laaj loolu <laughs> ah maa am yaakaar ne daal ni ma leen gisee daal di yaakaar naa ñu opp doole pour le moment d'accord moo tax nag xam nga mobilisation tamit bokkul ak voté mhm. moo tax ñu war a sensibiliser nag mhm. nit ñi seen i carte effectivement il faut le parce que boo dee mobiliser te jëloo carte tamit. Mhm. jour vote ba jotee tamit. Mhm. mooy loolu. Mhm. li ci am solo daal mooy képp kuy patriote képp kuy sénégalais di sympathisant. ku bëgg changement. demal jëli sa carte. d'accord. bu jour ba nga dem voté ji nga dem voté. toog surveiller sa vote. ba lépp leer bañ joxe résultat Sénégal am jàmm. merci merci beaucoup. bu ko defee ñu teg réew mi ci yoon tappale yi. tardement bi ay affaire aji saar ak tappale yi daal li nga xam ne tardé nañu. Hmm. pendant trois ans xaw ma quatre ans. Hmm. ñu éviter mu bañ fee amat. d'accord ñu dugal ñu def def ay réformes yu profonde hmm. équilibré pouvoir yi réew mi tegu ci yoon. d'accord xale yi dem liggéey ressources naturelles yi ñu yàlla may ñu mën ko exploiter teg ci temps de ci yoon ba Sénégal di ci gis seen bopp. d'accord parce que Sénégal pauvre ñu ah. mais njiit yu bon rek ñoo ñoo ñoo ñu tardel. merci merci beaucoup yàlla na leen yàlla merci euh, beaucoup ñoo ngi xaar vidéo diaspora ah, ñoo ngi xaar seen vidéo yi. ndax ah, seen dina ñëw incha allah seen campagne moom bëgg nañ koo gis foofu itam. Euh, il faut le dire ñu ngi dóor rek. d' accord merci waaye ba CP ñu nga fa. <laughs> ragal sax. <laughs> d' accord. Euh, ay ay ay nee na fay lay jëm. Maroc ma Arabie Saoudite. du dem Europe wala États-Unis. Mhm. xam na la nga merci jaajëf merci merci merci merci euh, di ko di ko jaajëfal Mamadou Diop ah doon woote depuis Italie maa ngi koy jaawalee ak sama xarit moomu ma ca ma ca Mbour ba koy tooñ naka jamono ji mbuur moom dafa mel ni Canada dañ faa dawagum waaye itam diaspora bi ah gars yi nee nañ xaw ma 2 pour cent xaw ma 5 pour cent waaye itam am na électorat bu am solo ba fa nekk euh, donc on va voir itam foofu euh, am na am na am na itam enjeu waaye nag Canada yi dafa mel ni ñoom ak diir gu gàtt gi nga xam ne moom la ñu am. ndax dañu fa mën a dem wër yenn dëkk dëkkaat ak ya fa nekk wala peut-être ñi nga xam ne ñoo fa nekk nekkal leen fa teewal leen fa bokk ñoom dañu def liggéey bi wër en daal euh, diaspora bi itam euh, gisuñu benn benn engouement encore jëmee ci ñoom ci wàllum campagne bi peut-être ñu jotagul information gi vidéo yi donc ni ma ko waxee Mamadou rek laa koy lancé quand waa diaspora eh, numéro baa ngoog 810 yi ku ñu ko envoyé itam dinañ ko jàngat xool yañ lañ ca mën 90 90 yoonu campagne euh, euh, dans huit minutes pour convaincre salaamaaleykum. ah ñu leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo leen di jaajëfal bu baax. Euh, kooku waa Louga. Ah. waaw fii waa Kër Massar la. ah. Kër Massar Kër Massar. ah waa Kër Massar. Kër Massar na ngeen def. waaw ñu ngi fi rek bu baax. loo leen gisagum ci campagne bi démb moom dégg naa ne Diomaye président jaar na fa. ndax amut yeneen ñoo ah, xam ne jaar nañ fa. waaw euh, dégg naa ñu ne ngoon lañ fiy jaar de. ah ngoon démb waa ñoom waaw Pa Ablaye Touré ñoo fi jaaroon. waa. Ablaye Touré ak Pa Ablaye Touré ak ak kii daal ak yeneen détenu politique yi daal. ah d' accord mais ñooñu ñëpp ci Diomaye président la non. waaw ñoom Diomaye président lañ waaw. Ah, waaw d' accord ñun kañ information boobu lañ jot moom jaaragul fi quoi. d' accord d' accord ok. Kër Moussa nag ñu ngi leen di xaar bu baax a baax. Mhm. di leen wax ñu préparé terrain yëkkati bi rek. Mm-hmm. dañ leen di ñaan rek karawaan bi ñu may ñu ci meeting bu mag a mag a mag. Mm-hmm. comme ni ko président ko defee woon. waaw ndax wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy xaar. Mm-hmm. waaw ndax Kër Massar moom kenn du euh, kenn kenn du dem ñu def daal. waaw ñoom daal ñu ngi xaar daal seen meeting comme ni ñu ko defee télé ak télé ci commencement bi. wax dëgg yàlla moom ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax. léegi léegi waaw rafetlu campagne rek. d' accord d' accord d' li ma li ma la ci. li ma la ci bëgg laaj mooy li ma la ci bëgg laaj mooy euh, campagne bi quand même gis nañ ne stratégie bi daanaka bi ñoom ñëpp ñuy employé daanaka dañ ko xaw a nduru maanaam dañuy defi caravane def porte à porte séddale ay flyers mais ba léegi impact bi ci wàllum programme bi dafa mel ni dese naa dese naa am maanaam communication bi war ci programme bi euh, programme yi nga xam ne moom la ñu moom la ñuy jaay ndax yow gisoo ne dese dese naa dese naa dese naa dese naa am maanaam ñu gën a fësal programme bi maanaam fi ñu bëgg a yóbbu réew mi loolu est-ce desul ci sa gis-gis. programme avant ñuy dem élection ku nekk xam nga sa programme morom. Mhm. ndax bu fekkee Diomaye la la pro programme président Sonko la yor. Mhm. te Sénégal yëpp xam nañ lan mooy programme président loolu moom daanaka sax jarul ñu si yegg si su fekkee Amadou Ba la moom dafa waxoon continuité lay def moom. Mhm. waaw bu fekkee ay ñoom ay Khalifa Sall ak yeneen gars yooyu yëpp ku ci nekk moom wane woon nga fa nga jëm te boo gisee caravane am maanaam. da ngay sentir ne euh, comme temps bi dafa xat te waa PDS ñoo provoqué lu xam ne. Mhm. ñoo yàq temps bi bëgg indi firnde ci réew mi naan ay dàq élection. Mhm. dem nañ ba nga xam ne pression internationale bi ak pression nationale bi. Macky Sall mhm. assume ko ba na léegi dañuy def élection. comme ñoom ñoo defoon seen tey tey dàq élection te te te teguñ ko ci yoon duñ reprendre le processus bi ñu war a dem élection. date bi comme léegi dar bi matuwul moom. dañuy mhm. war a dem rek comme ni mu ni mu toll. léegi nag date bi comme bëriwul mënoo fee nekk def ay meeting te meeting bi ñëpp duñu mën a ñëw. kon li lay mhm. mooy ngay mën a def ay caravane. Mhm. moo tax caravane bi gars yi tàmm ko ci meeting bi. même bu fekkee danañ ko def ay deux fois lañ koy wala trois fois. parce que meeting bi boo xoolee tey bu fekkee da nga bëgg a def meeting Kër Massar wala nga bëgg ko def tere ak pes boo xoolee waa Dakar kese lay doon. mais bu fekkee da ngay def caravane tey mën ngaa xëy jógee dem ba Mbuur wala nga dem yeneen dëkk. Mm-hmm. xam nga loolu ñu bëri danañ ci mën a am. Mm-hmm. waaw looloo tax parce que temps bi moo leen may nii def ay miti looloo tax ñu caravane gën a yaatu. Mm-hmm. kon caravane yi man gëm naa ne loolu mooy moo ëpp solo sax parce que foofu foo war a dem rek gars yi mobilisé wu xaar la ngeen ñëw def seen programme waxtaan ak ñoom jàll. ndax nit ñi moom li ñuy wax dañuy rafetal rek mais ku nekk moom xam nga euh, candidat bi nga xamante ni moom nga war a wote ku nekk xam nga ko. campagne bi jaru koon parce que li yàq lépp. mooy waa PDS yi nga xam ne gëmuñu Sénégal bëgguñu Sénégal parce que yow bu fekkee ne ki nga àndal moom Sénégal ñor na ko lan moo tax ñëwul ne moom day day dindi nationalisme léegi defu ko ba nga xam ne weer nañ ko conseil constitutionnel génnee ko nee na bu ko génnee élection du fi am te loolu sax ñoom du seen doole de parce que làmmiñ rek lay am mais bëriwuñ waa PDS bëriwuñ amuñu doole. Mhm. mais Macky Sall moo nekk seen ginnaaw pour ñu jàppale ko pour ñu dàq élection yi parce ne xam na ne bëggu la dem élection. Mhm.